aca final poids léger baa ngi noonu monument Nianda ak Ngor Niakh c'est le final des deux phénomènes sàng ba tey ñu ngi doon tëkkante final boole na leen ñaari technicien yi monument Nianda nee na bëgg amagul licence Ngor Niakh gàddu ko am ba tënk eh. Ngor Niakh monument Nianda Ngor Niakh ni may sobu sañoo daje ma ne ko moom nee na mos nga kaa daan mu ne ma kon baax na Papa Omar Sarr maa ngi lay jaar Robert Tour mu ordinateur Avenir TV zone ouest monument Nianda Ngor Niakh final poids léger fi si arène nationale ngeen xool woote fi drapeau de la paix bu dul jàmm jàmm nga la gën tegal mbëri 3 10 millions de la ndeysaan ma yóbbu drapeau de la paix drapeau si diggante monument Nianda ya la fanserie de Nianda Ngor Niakh arbitre nee na ngeen bëre ba caaxaan c'est une finale jox ndeysaan li nga xam ne mooy mag ma ñaw waa Julaar ma seen fay Babacar Pod nee naa la mbaax rek am solo te lu dul mbaax mbaax ko gën te lu dul jàmm jàmm ko gën yàlla ñu boole defal ndax la xaj ko ba dooru di dara am boo dara feeñ ndeysaan ah, ah. waaw waaw ci diggante monument Ndianda ak Ngor Ñaax monument Ndianda des ah, ñaari xale yaa nga ca ba tey dara xewagul. finaaloo yàlla. dañ ma yóbbu drapeau jàmm ji drapeau waaw c'est normal. refuse refuse dañoo bañ a bëre ku nekk am nga benn avertissement ñu kan mooy ñëw diggante monument ak Ngor Ñaax dafa mel ñaari mbër xamante nañ am na jaar attention Ngor Ñaax dugg na ko eh, monument génne na ñaari jaar ku nekk xam nga sa morom nañ Wolof Njaay naan bala ngaa ñam góor bala ngaa yeb sa morom góor ñam ko. monument monument Ngor Ñaax. eh monument Ngor Ñaax. monument daa ñëw téye boppam. million ci kër daa neex dafa neex. dara dàqu ko. Ah, cay lamb. 5 million lamb am am na lu ne. waaw mu dongo ko man de. mani boo trois ak ci biir waaye bu leen fàttali ni ku ñi ndeysaan invité la le 30 ndeysaan

ñu ngay bëre Monument bañ na Monument Ndianda bañ na Monument takk na ko Monument takk na ko Monument takk na Monument lan mooy xew foofu attention Ngor Niang ngay tuur Ngor Niakh daan na ko Ngor Niakh daan na ko jël na final ba eh Ngor Niakh machine ne ne jël na poids léger bi si kaw monument eh dafa dina jaloore eh monument eh Ngor Niakh ndeysaan dem na si doomu ndeyam ay waay ndeysaan